Serigne Abdoul Aziz Diaw di marabu tradipraticien di yëngu lépp lu jëm ci wàllu ñaan yàlla te léegi ma nga fële ca Thiès lépp lu jëm ci listixaar lépp lu jëm ci plante xalwatu lépp lu jëm ci sangatu ubbeeku muslaay mucc ci cat bàyyi ree sëriñ Abdul Aziz jaw moo ma ci day soo bëggee gis xam-xam ba maam ya yoroon dawal seeti sëriñ Abdul Aziz jaw ma nga fële ca Thiès waa Thiès daal léegi gagné nañu ndax nangu nañu sëriñ Abdul Aziz jaw yow mi jógee dakaar te wàcc ci péage bi premier arrêt ci garage bi nga jàdd sa droite boo doxee tuuti di nga gis tableau Madinatul Rahma jàkkaarloo kër sëriñ Abdul Aziz Diaw borom képp ku jàppanteeg man ci wàllu ñaan yàlla mucc nga ci ñu lay xeex mucc nga ci nga ci gàllaaj jële jàpp lépp lu jëm ci fajum plante Serigne Abdoul Aziz Diaw moom ma ci doy ngir mën a jokkoo ak moom ci 77 571 87 63 wala 77 067 83 37 ngir jokkoo ak Serigne Abdoul Aziz Diaw. jot na ba teg 33 minutes fële ci jokkul ak li ko wër asalaamaaleykum. jaajëfal nañ leen bu baax a baax mboolem euh, ñi nekk foofu la ci jokkul te di ñu bàyyi xel rawatina waa Jokkul FM euh, ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy taxaw ci euh, di synchroniser ak Walfadjri ci journal beeg xew-xew yi fi am ak ba ci jomet rawatina jërë ngeen jëf yéen waa Jokkul FM. Euh, jaajëfal ko bu baax a baax itam waa diine jfm ñoom it dañ ciy taxaw bu baax di euh, rajo Oustaz Hady boobule waa diine jfm ca kaw Kaffrine ak ca Kaolack euh, jërë ngeen jëf sama gars yi jaajëfal ko bu baax moom Mamadou Makhtar Sarr moom la ñu jël nu yëpp correspondant yi Walfadjri yi teg ko ci loxo mu daal di koy séddale bu dee groupe whatsapp yi sama gars yi ci liggéey bi partage ak enregistrement yi Alaaji Katim Cissé Ilimane Diop Cheikh Ndaw président Lamine yaa ngi ci biir bu dee fële ca GCB Baye Assane Mesrek Mouhamed Silla ak Abdoul Ahad Ndoye Ahmadou Bamba Dieng Bamba Fépp ak Serigne Ibrahima Diop ñooñu ñoo fa nekk euh, fare ca enregistrement yi ak partagé yi jaa ngeen jëf sama gaaye yi euh, Touba googu yi ñu ñaanal Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad mbakke ca Touba mu yàgg fi lool te ànd ak wér. boo demee këram fekk ca rajo ba wal fajiree fa nekk boo demee ci télévision ba fekk wal fajiree fa ne jërëjëf mbàkki Balla ci taxawaay bi ak bëgg gi groupe bi jërëjëf yàlla nga fi ak loolu te ànd ak wér ak mboolem ña koy jàppale ci kër ga ah, euh, xaritam baa ngi nii nag waaw moom alaaji Sanjogu Mbeng tey moom tabaarkàlla Facebook bi yéen ña fa nekk gis ngeen tey fa mu laal euh, def na jesneeram bu vert wala boog bula waaw laal laal na ci tuuti beige jël mbaxana mu bees te teg ca kaw tabaarkàlla tey moom sëñ Baara Ndiaye naa du am lu mu wax Alaaji Sanjoogu Mbeng xaritu sëriñ Siidi moom sëriñ Abdul Ahad Mbakke ca Touba di xarit ci sëriñ Daare Alaaji maa ngi lay nuyooti. oti yi bu ñu ngi lay fay. di la ziyaar di la ñaanal jàmm. di am mbégte ak kontaante di nuyu sénégalais yi nga xam ni ñu ngi ñuy teewlu. waaw dem ba Touba Mbakke nuyu xalifa général des mourides sëriñ mun tax ko mm-hmm. ñaanal mu yàgg fi tànd ak wér. di nuyu di ziyaar. Mm-hmm. sunu sëriñ sunu xarit. Mm-hmm. muy sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke. ñu koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ànd wér. ñu koy ziar bu wér a wér ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool. di nuyu sëriñ Xaadim Fall na ca kër ga. sa buur. sëriñ <laughs> Xaadim ñu lay nuyu. nee naa bu bu sëñ bu ba sëñ bi waxoon de waaw. saa moom. loolu sëñ bi du la ko wax bay sa buur. ba waay fekk daal. ko kon nag kon nag kon nag booba nga xam ne xaadim moom du nekk sama buur. Eh. xaadim moom du nekk sama buur <laughs> faaleen boobu moom. Eh. <laughs> bu yow war a xam yow sama ginnaaw lay toog. Ah. ndigal laay déglu. Ah. waaw waaye yow moom yow moomu di ruube. nga xam ne tey nga ne nii suba nga ne na yow waxuma say wax allah ba moom paale nii laa gis. waaw ma ne ma ah. ma ne yow moom ruubekat nga. ruube waaw ruubekat nga yow moom nit ki day dugal crédit rek. <laughs> baax na numéro 2 yàgg messages <laughs> di nuyu euh, njaboot ga yëpp di nuyu bu baax euh, sëñ Abdou Karim Mbacke vraiment Karim wax laa di nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mhm. lew nañu seen Medina Baye Tiwaawan Ndiassane Laayeen. Mhm. Cenaba Andoulaye di nuyu bu baax. Mhm. waa Jaamal. di nuyu waa kër maam El Hadj Ndiéguène ca di nuyu waa xalif général des Baye Fall di nuyu suñu mbokk jàngu bi di am ci ñoom ñëpp mbégte ak kontaante Ibrahima Khalilullah ñu ngi koy nuyu ak jéen ñi nga xam ni ñoo nekk ci internet di nuyu mbokk internet yi nga xamante ni bi ñu ngi ñuy suivre ah. di am ci ñoom ñëpp mbégte ak kontaante doo nuyu waale maamu béti maamu béti mooy kan maami béti ah. doo ko nuyu oh, maamu wax dëgg yàlla xaw ma ko ah, wax dëgg fa yàlla bëgguma tooñ bëti mais caba xaw ma ko maamu caba it xaw ma ko. pend maamam xaw ma ko ñooñu seen maam defut jaloore ci mim réew <laughs> seen maam buñ càmbaroon seen maam maamu caba maamu pend maamu biti ay figurant lañ ci histoire. boo jëlee histoire seeni maam figurant lañ ci. bo maanaam amul fenn fu leen histoire bind. waaw mais maamu Béti maamu Caba maamu Penda. Ah. amul fu histoire. bindee ba xalmatis seen maam. figurant lañ woon ñoom. seen maam figurant la. bu ñu doon film ñu ne seen maam figurant mooy ñuy romb te kenn du leen bàyyi xel. ñoom noonu ah. seen leen romb leen rek yéen. waaw dañ naan leen romb maamu ñoom dañoo romb maamu Penda. <laughs> xam <laughs> parce que yow da ngaa wax mais da ngaa commencé loo xam ne nee nga. déet bëgguma tooñ ndax xaw ma seen. waaw xaw ma seen maam mais mais mais boo intéressé histoire. Ah, woon wax dëgg fa yàlla. ci àdduna bi loolu mais nee la leen xam nga àdduna bi. dafa am ay acteurs. am ay kii mais figurant tamit daf cee dafa am ñoo xam ni. seeni maam. Euh, wax dëgg fa yàlla. Euh, ay figurant lañ woon ci àdduna bi. Ah. ñooñu nag seen maam ci lañ. Ah, ah. vraiment léegi nag ñoom. Euh, léegi dem nañ sax ñoom ba wax dëgg fa yàlla. nit ñi xam leen. maanaam ñoom euh, euh, jàmbaar lañ. jàmbaar waaw parce que seen maam figurant lañ woon waaye fi mu doon ni fexe nañ. góorgóorlu ñoom. ah ñoom góorgóorlu waaw ba ba ba bokk. ba bokk. ba ëllëg si biir peut-être bu ñuy wax histoire. ñoom mën nañ leen cee tudd histoire ay sëtam dinañu seen maam caba animation waaw euh, seen maam moo daan def yoor yoor ay sëtam waaw amoon nañ ko joxoon nañ am prix benn prix sax joxoon nañ ko sax prix ca Italie ndeysaan prix yoor yooree re waaw yoor ca temba waaw ca temba temoore yoor yooree ah <laughs> temoore yor yoroore bu dee maamu béti xam nga moom xew ci jamonoy couvre-feu waaw bañu pàddu ko état d'urgence non non fii de bañu ah, aaye xew ñu dem la waaw waaw di laajte police di leen tegtal ma te booba ñi ngi aaye xew wallaay ñoom ñu dem ba police laaj ca wa police joxoñ leen xew wa loolu seen maama ko defoon loolu la waaw waaw bu dee pend dina histoire dina bind dem ak màkkaam waaw histoire dem màkka loolu mooy histoire ak yee ca xew <laughs> yëpp yóbbu ah. màkka yóbbu kaani kaani <laughs> waaw loolu <laughs> histoire et la daal macha allah. ñu ngi leen di nuyu bu baax ñoom ñoo ñële ak ñeneen ñi nekk ci biir moo xam euh, la mbooleem ñi nga xam daal ñi ngi ci biir ba ci sukka maami sukka nag moom xamoo ko. maami sukka am na jaloore moom moo moom moom moom daanaka Thiès bi muy soog a door moom moomoon genn wàllu Thiès. maami sukka jaayee ko dibi dibi te dibi la nekk rek. jaayee ko la saa ñëwee jox ko cornet mu nakk mu takkal ko euh, kii 200 mètres carrés. dibi waaw. ah non quartier ba njëkk ñoom ñoo ko moomoon de. kon dibi la jaayee quartier ba. quartier ba njëkk di xam ma mbaayeen la tuddoon xam ma waaye fi mu doon léegi seen kër ci ruq ba la ne. <laughs> te moomoon ñoo ma war ñoo ma war ba seen maam seen baab ca dibi ka. fu mu mbalaxee ba ñëw rek borom dibi bi kii ko mu daal di yor centimètre mesure li jox leen ko fii ak fii. Hmm. <laughs> di ko jox ba jeexal. tariixatu li mu desee noonu sax lañ fa am noonu. waaw ñoom dañ ko naroon na ko kii mujj gi ñu ko doo ko lekk. déedéet waay. waaw. Ah. ah kon quartier bi da koo lekk. Ah, daal lekk quartier bi kay rees na. paa bi reesal la ko. ay alaaji alaaji Mamour Mbaye nga lay dégg <laughs> ci Thiès ñoo ngi koy nuyu. waaw alaaji Mamour Mbaye xam naa daa gëj neppaat nag alaaji war war naa ñëw ci neppaat fan yi nag. incha allah alaaji Mamour Mbaye. waaw waaw war naa ñëw neppaat fan yi. waaw fan si club gars yi la. waaw waaw gars yi bëgg nañ ko. waaw gars yi dañ ko fan de. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax euh, di nuyuwaale Serigne Moustapha Mbaye ca ca ca tuubaa waaw mm. tabarkàlla. Euh, alaaji lii lan la. ah kay xaw ma lu mu <laughs> xam nga Facebook baa ngi nii nga ne xamoo lan la te gars yi ñu ngi lay seetaan ni ci Facebook bi yow yaay play ne xamoo lu mu gars yi gis ngeen alaaji de te bu caméra yi fayoon nag nii lay nii la ma koy jiiñee. <laughs> ah jërëjëf. kay loolu kay ñoo ko gisandoo. yow gars yi di la seetaan nii nga play. li ñaan dëkk bi tàkk naa jëppeet. ñoo ko ah. gisandoo waaw dëkk bi tàkk naa jëppeet. ñoo ko sëriñ boo xam ne da ngay da ngay taasoo ko Pape Ousmane Bade dégg naa ko ci yow bokk léegi. Pape Ousmane. Pape Ousmane ba daa jébbalu. moom day wër tarixa <laughs> kuy wër tarixa maas nag. maas du dugg ci tarixa bi trois thèmes. borom ñetti thèmes. Ah. ban ak ban nga waxoon. franc-maçon. waaw ah. ak ban cagaj. cagaj ñetti te franc-maçon cagaj bi defee trois émissions la base bloqué toog di réfléchir yor sax bi oustaz romb ko ne ko bii di ñëw booy def maa ngi ci kër maa ngi xalaat oustaz romb baat ko mas pare ko invité lay def mu ne ko defoon nañ bële passé franc après ñu def euh, góor jigéen caga ji pourtant mën nañu répondiraat ci caga ndax fan yi jàppoon nañ ay caga non <laughs> nga bëgg cee def émission adum yàlla un an mënta ne ah non non mais loolu alaaj moo fees dëkk bi nag alaaji yow nag caga ji ak euh, góor jigéen yi yaa ngi noonu ko doos lan la woon <laughs> ay son yi mu xuddoos bi di ñëw bi xanaa daa commencé waat xuddoos bu boo gisee rek corona bi soreetul. non xuddoos kay xuddoos <laughs> nee jeex na xuddoos ko wax. Ah, ah, jeex na man de moom xuddoos boo ko masaan a jóg gis damay tiit. ayca ah. mi ngi noonu jaajëfal ku baax moom xuddoos ak mbooleem journaliste yi nekk ci biir kër gi tey nag alaaji euh, ñamale gi bala ñoo dem ci élément bi tey jokkul la ñu jëm alaaji jokkul jokkul bi mag ubbee tey incha allah fa la jommet ba jëm nañu ubbi bu baax a baax seen rajo yi eh, te ku jege maire ba fa nekk nga yokkal ko rajo bi ndax tey jële eh, am na ci wolof ay Tall sàll eh, mi nga xam ne daal moo yor affaire étranger moom mi ñu doon tudd ci wàllu passeport diplomate yi ñu doon saax saaxe ak def ak luubal moom génn na bi mu mm. génnee nag nee na yëguma ci dara nee na lii nga xam ne mooy ak luubal di ak njubadi yi ñu doon def passeport yi nañ ko ci kaccat mm. yëgu ci dara ab jàngat la nag ci ku ñu dénk wàllu étranger ndax loolu lii euh, sa rôle la wala say wax la est-ce que war na mën a nekk loolu itamit dinañ ci ñëw ak alaaji gii Marius Sagna mi nga xam jàppoon nañ ko ci ab poste daal bu mu reprendre woon gannaaw ba daaj nañ ko li nga xam ne mooy deux ans ferme waaye nag six mois lay tëdd moom gii nag ba mu taxawee ca baar ba la mu wax mooy bu tey doon tey mu waxaat delluwaat ci la mu nekk ndax daw ca yoota xëy na jàpp na kon la mu wax ba léegi dëgg la Euh, li ma jaaxal nag alaaji fii ñi mujjee mooy dafa am benn groupe boo xam ne daal fan yi nee nañu dañ leen di bëgg a tëj wala boog seeni i ba sax démb dem nañ fa relever ay micro xool daal yooyu yëpp dafa benn constat la ma jaaxal nag damay gis ñaar ba ñett yoon daal damay dégg ñu naan wal fajiri gu njëkk gës taxawaay ba ñu euh, léegi moom la groupe bi amee ba tax ñu singili ñu léegi daal affaire bi du xeexu bugaan mais groupe bi moo déranger état man nag alaaji ma jaaxle lool ndax damaa foogoon ci wal fajiri laa nekk ndekk yow ñaari wal fajiri moo am daa am gu njëkk gu mujj ji kañ geen soppeeku ak kañ ngeen soppi xar kanam te yëguma ko loolu yi tey mooy ñamale gi nga loolu de man jàpp naa ni waxi caaxaan la rek parce que boo nee wal fa jëri gu njëkk ga euh, moo tax na mu daan taxawee na Walfadjri doon taxawee mooy taxawaay bi nga xam ne bii moom la Dmédias am dafa mel ni Walfadjri dafa soppeeku wala D-Media moom moo léegi daal. Euh, remplacé kii. nee nañ ku sa bët xonq fa nga ñëw leen fa ngay ñëw leen. waaw non non non non fii saa yoo xoolee journal bi ñu seen bët xonq ñoo fi ne. amul leen loo xamante ne bi changé na fi ci ligne éditoriale bi nga xamante ne moom nekkoon. parce que ñi ngi jël ñi nga xam ne <laughs> bañ na ko sax ba nit ñi dañ lay taxé sax ne télé bi war rajo bi télé opposant la. Uh-huh. donc lan moo fi changé ba tax nga bëgg wax ne. mais répétition bari na foofu. waaw non waxi caaxaan rek tam quand même nañ bàyyi wax yooyu bu booy wax mën nga ñaawlu li nga xamante ne bii teg nañ leen ko. Mhm. mais bul naan Walfadjri gu njëkk ga. mel ni Walfadjri gu njëkk ak gu mujj daf fee ne. Mhm. mel ni ligne bi dafa soppeeku loolu. façon waxin la woo xamante ni bii façon euh, mhm. kii la quoi. nu mu tuddee fi mu toll nii xibaar fu mu bu dëkk bi ne réel tàng. nit ñi seen xel yëpp fu muy daj booy wal fajiri la ñuy daj uh-huh. fa la ñuy ñëw toog seetaan donc nag bul wax loolu te wal gu njëkk ga sii di nekkutoon politicien ah, yaa ngi dégg du woon politicien amul mouvement amul mouvement yorut parti ah. sénégalais la woon bu ubbi barabu liggéeyukaayam uh-huh. di liggéey uh-huh. am ligne éditoriale mu déranger ñenn ñi ñooñu daal di ne lii du fi amee muy jàmmaarloog ñoom boo ko ak yow nga yor sa mouvement di wëri tànk ak tibb tànk ba noppi nit ñi daal ne kii ab politicien la mhm. nga daal di ñëw ñu ñu tourné naan noo wal fa jël ku njëkk wax caaxaan la quoi quand day mel ni bu ñuy wax dañuy mel ni sax dañuy comparer ñaari nit ñi mhm. que ni euh, na mu taxawee woon noonu la kiy taxawee te loolu amut ah man jaaxal naa xar kanam bi de gisuma lu sens si Lamine taxawee woon donc amul benn patron de presse bu ko taxawee ah, waaw politique bi mu fi wootee fii. 19 mars. sénégalais yi ñëw wuyu si ko. mu def fa message am wane ni politique tey politique la ba mu paree man mii bi ñu waxta wax bañ ci kii wax naa ko ne ko man de bu doon man la du ma wax loolu. du ma ne politique ma damay bàyyi noonu bu ko defee loolu di tiital boo xam ne dinga nga leen ko tiital politiciens yi. Uh-huh. mu ne déedéet boo ko waxut. Uh-huh. foofu lañ la nit di jëmale. dañ naan politicien la donc baat boobu mosul bëgg tamit nit ñi di ko xoole parce que sénégalais la boo xamante ni dafa taxaw di xeexal réewam ci ay ngëm-ngëmam ay gis-gisam wututoon lenn wutut pouvoir wutut dara donc bokkul quoi bu ñu comparé lu comparé lu bokkul quoi waaw comparaison kon xar kanam xar kër gi Walfadjri yi amul dana lu changé waaw problème sax mooy lu fa jàll lu jàllul ci. waaw dara dafaa jàll lu jàllul ci yeneen télé yi xam nga dañ wax ne bon peut-être am na leneen loo xamante moo tax ñu song leen quand même mais euh, bu ñu ko jël nag naan way ñun ñooy guerrier yi ñun ñooy ngand yi budut ñun bu ñun ñoo tax ñun ñoo nekk ci ginnaaw askan wi mel ni léegi yeneen télé yi dañoo nekk feneen loolu day mel ni yow yaa ngi yëkkati yow loolu du du xeexu ku muus sax doo xeexee noonu quand to xeexee noonu waaw parce que man la ma ci jaaxal ba ci animation ya fay am ci bëccëg ña fay animé ñi ne ci état bi la ñuy yendoo bàkk waaw lan nga a waxee loolu la loolu def waaw ah loolu yëpp ma ngay jàll ca télé ba te fi loolu amul fii moom déedéet amul fii quand même di taaxuraan amul fi voilà di wax ni daal Euh, man nag bu ñu comparé mbir yi kon damaa yaakaaroon sax ci wàllu fajar gu mujj laa nekk. déedéet maa ngi ci bu bu ñu comparé mbir yi. ayca Aïssata Tall Sall euh, daal nee na yëgul mbir yi li xew te bu ko kenn limaa la ci caay-caay ga. ah dëgg la yëguñu ko. waaw xew ko. yëgu ko waaw parce que xam nga dem ñoom dañ leen a teg ci poste yoo xam ne bi euh, daanaka xam-xam tegul leen fa politique a leen fa teg rek maanaam ah. kii leen rek maanaam dafa am yu bari yow leen di lu ñuy umpale te ñoom sax dañ koo talut ci politique bi la ñuy nekk ak lijjanti ay militant poste ba dañ fay nekk rek ñu naan ñoom ñooy diw waaye euh, defuñu fa dara donc bu nee yëgu ko tamit euh, dafa avoué rek lenn ci lu nit ñi xamoon hmm. que ni mënu koo yëg parce que dañ leen mën a joxe benn branche waaw non c'est que bu dekkoon ne kii bu sérieux parce que li mu def noonu aveu la maanaam pour wane nii tamit ñu xam ni am na yeneen yu bari yoo xam ne mi ngi xew affaire étrangère yoo xamante ni bi euh, xamu ci dara. Hmm. donc bu fa demee fa ay kii parce que ña fa nekk ay. fonctionnaire lañ xam ni administration di doxeek yooyu yëpp dugg na fi génn fi comprendre. Ah, am boo toogee lu yàgg liggéeyoo. Ah. dafa am repère yu bari yoo xam ne tamit da nga koy mmh. perdre mooy li mi mi waxoon idi waaw daal ne boobu dafa gëj a liggéey. moo tax am na ñu di laaj ay mu ñëw di laaj dossier fekk mu ngi ci ordinateur bi ma ana kayit yi <laughs> mu ne kayit yi fii yëpp dañ ko waroon a renseigner fekk lépp ci ordinateur yi ay kii nga war a laaj. <laughs> te jox nañ la li nga xam ne moom mooy dafa gëj ci administration moom mooy mot de passe yëpp jox nañ la ko yow xamoo ci mbir yi dara naan a ah, am ak kayit yi trois yëpp vide lii mooy lan di xiin xiini ñu ko da ngaa gëj a liggéey c'est que c'est que c'est que mimi mimi tontu bi mu tontu foofu Idriss bi dafa dal. mooy non non dafa gëj liggéey moo tax yu bari xamatu ko <laughs> loolu moom dafa mel ni dagg fanaanal la woon <laughs> parce que xamul ni léegi yëpp ay mot de passe la kii nii ngay duggee këf nii loolu dugg xool lii ak yooyu idi ñëw moom di wari këyit. non hmm, ana dossier yi suñu kay kayit a def. caabi yi fu ñu ko dugal caabi yi <laughs> soxlawut ay caabi. addina bi <laughs> addina bi day dox. <laughs> Eh, ki ki ki doxoon jëm ca eh, takk yi de gars yi arrêté nañ ko. kooku la gii. waaw nee na nag la mu waxoon démb bu dee tayet moo xaat ko. voilà xam nga Guy mari Sagna euh, vraiment sénégalais la boo xamante ni bi euh, sénégalais bu sénégalais yi war a delloo njukkal la. ah ci naka. waaw euh, dama déglu keroog kii ndeysaan nu mu tuddati Morgan. <laughs> Morgan Morgan Morgan. Morgan Morgan mooy rappeur boobu quoi. Ah, activiste boobu activiste rappeur boobu. mu wax benn affaire boo xam ne nit ñi bàyyiwuñ ci xel. Mhm. Euh, te lu ñu war a bàyyi xel la mu ne. waaw ñi ñëpp xeex nañ fi. bés ñu taxaw. daldi ne sénégalais yi jaruñu xeexal. waaw daal découragé. découragé. Mhm. mu ne ba mu des Guy Marius mhm. mu ne man man mii sax def naa ko. ndeysaan ne sénégalais yi jaruñoo xeexal ne sénégalais yi jaruñoo xeexal. mu ne ba mu des Guy Marius Sagna. mu ne musu ko dégg mu ne sénégalais yi jaruñoo xeexal. te lu ne mi ngi ci di xeex pour réew mi tegu ci njub. gis nga ki ko tëj ñi ko tëj démb wala procureur yi ko teg lu ñu ne nañ ko def li ak lañ ko def laa nañ ko tëj ba tëj waaw tey bu gii génnoon tey. ñooñu ñu néewal leen doole. waaw gii génn ñëw xeexal leen. waaw ñu bëgg a néewal doole magistrat yi. waaw mu boobaa mu génn xeexal leen xam ne Demba Sebaare wax na ko ci émission bi. daal ne même gendarme yi nga xam ne ñi koy jàpp ak policier ak yooyu. bu ñu amoon jafe-jafe ba taxaw génn. ci lu dul yoon. bu ñu gestoo gis Guy Marius Sagna ci seen ginnaaw waa dëgg la dëgg la kon moom république bi lay xeexal gii voilà li muy xeex. vraiment vraiment vraiment. jafe na ci gars yi sénégalais yi. Ah. te mosuma ko gis tamit mu ah, jàmmarloog police police yëkkati arme moom day yëkkati dara day yëkkati ay loxoom. du xeex. waaye dina wax li nga xamante ni bii mooy li muy wax. waaw ah, mais est-ce que nag alaaji jotul mu changer stratégie xeex. parce que jàpp gu bari tëj gu xeex. am na benn waay bu wax wax bu am solo mooy gii xeeñ euh, xañ nga ñu six mois yoo ñu waroon a xeexal. Hmm. xam nga liy xeex ci àddina même boo tëjee nit ki terewut tëjoo maanaam kii bi nu mu tëddee esprit maanaam euh, idée yi idée yaa ngi kenn mënu tëj waaw te am na ñu adhéré ci loolu mën na am sax le fait que ñu téeg gi ci six mois yi uh-huh. dañuy créer six million wala six mille gi ñeneen ñu mel ni moom bu defee mu gën a metti ci ñoom xam nga bu jàppee ni téye gii mooy régler problème bi. loolu te gënu koo rëy. d'accord parce que buñ ko téewee. yeneen gii mari saañaa la ñuy créé. waa Assane de ko fi rapatrié. waa ci la fi ay saaga juddu waaw saaga daa woo ko gis ci activiste yi. mais no dama ne la yeneen gii mari saañaa ñooy judd. te nag yeneen gii mari saañaa juddu ci réew mi. Hmm. njariñu réew mi la. Hmm. dafa dafa baax. Hmm. waaw. yeneen sénégalais yoo xam ne adhéré nañ ci liggéey di xeex. comporté wu comme moom. ñeneen ñu mel noonu judd. day gën a yaatal kii. Nelson Mandela ñaata at lañ ko tëj. waaw bari na terewut li nga xamante ni bi moom la doon xeex. waaw mujj fa def ba jóge tëjoon ko est-ce que réglé na problème mu ne defe nañ buñ ko tëjoon affaire yi jeex mais dañ ko tëj affaire yi gën a yaatu. waaw ya parce que pour mbir gën a yaatu. bi ñu tëjee bunt bi ne bon nañ fermel kii porte bi dootul génn ci lañu ubbi yeneen bunt buntu. pourtant falaa jimoon dama la bëggoon wax ni la yaa may faral di wax ni saa yu ñu la tëjalee port mhm. am na yeneen yu ubbeeku. si non nañ leen buntu yi ñu ubbi sax lañu xamut nu mu toll. waaw kon nit ki lay tuuti ci kanam tuuti di nga gis. Mhm. loo xamante ni bii di nga gis ni sénégalais yi. Mhm. Euh, di nga gis yeneen Guy Marius Sagna te loolu ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko def. macha allah voilà. jërëjëf alaaji Sanjoogu jërëjëf mbokk yi waaye Guy Marius Sagna jaajëf jaajëf yal yàlla sàmm ko amiin amiin alaaji dañu dem jokkul jokkul jokkul daal hôpital wala post de santé ba fa ne mhm. mairie bi daal la ñu wax ni moo téye ab loxoom ni dootul fay courant ba mhm. médecin yee téye seeni loxo ni dootuñu faj dootuñu faj waaw ku baax

doon yi maire bi dafa fayu di yor xaalis bi moom di yor xaalis direct man moom a jege dix mais directeur bi moom it wala wala hôpital bi moom it na ko moom lu muy doonee directeur kon doyee ah hôpital yi xam nga daanaka moom directeur bi rek fi nekk am na dagg ticket ah ticket yooyu ngeen di dagg dañ si mën dafay courant en attendant gars yi de nañ courant bi moo ñëwul ndax maire bi moo fayul courant bi mm-hmm. léegi ñu coupé courant bi après léegi fu mu euh, boo fa demee bëgg a faju ñu ne la courant ah, bi moom xanaa ñoom lu ah. rek la taal ak seetaan télé xam euh, ah, taal salaire nanguñ ko utiliser quoi parce que dañu ne comme dañoo coupé courant bi la ñu itam dañuy grève a am courant waaw mairie yi de kon dañoo lëkkaloog hôpital yi man sax xam mënoon hôpital yi mairie yi di fayal courant waaye defoon nañ moom fii ci commune Jokalante. commune de hmm. kooku de saa njóogu war na faa dox su ñëw gis poste santé wala boog hôpital bi waxtaan ak euh, directeur yi wala boog waxtaan ak waa bi ñu bàyyi seen caaxaan yi ñu nekkee. waaw waaw loolu de wax dëgg yàlla jaadu nañ ndax fii moom ay nit a fi dëkk te jamono bi ñoo toll si jamono nit ñi dañoo bàyyi a dee. xale yi a tawal lool sax bëgg nañ ko ñu si jox solution. moom kay bu subaa bu soobee yàlla dinañ tàmbalee liggéeyaat. mi ngi noonu ji mu nekk loo xam ni lu dooy waar la bu ñu demee ba am réew euh, bu fekkee ni bokk bu fekkee ni maire bi moo jëloon ay matuwaay ni dina fay li nga xam ne mooy courant ba dem ba yàgg mu téye loxoom xaw ma nag lan moo sabab loolu le waaye jaaduwul ca ña fa nekk di faj ñoom it faj seeni loxo nit fii ak fayuñu courant bi ñoom it duñu liggéey te am nañ possibilité beneen mooy am nañ ay solaire xam nga gën a garaaw ci àddina son yi alaaji waaw mooy euh, problème yëpp ñëpp gars yi seeni problème dañuy fekk askan wi am problème. Uh-huh. ñu bëgg koo régler ci askan wi am problème. ñoom ñu ah. régler ci seeni problème. Ah, maanaam dañ lay teg. Ah. mbir. Uh-huh. mbir moomu jéem a ko lijjanti mu fayu nga ne non non mbir mi naa ko tuxal ci ki naa ko teg kii. waaw waaw kii nga xam ne moom dafa am problème ki xas ba feebar war a ñëw faju si nga ne ko du la faj ndax kii. maire bi fayul courant. donc waxal ak maire bi. d'accord boobu bu fekkente ne bi fayut courant. Uh-huh. te mu war a nekk sa budget ba. am na feneen foo war a jaar bu fekkente parce que maire bi du ko fayu ko ci poosam. du dëkk. dafa am. loo xamante ni bi moo ko warloog hôpital ba defe naa. waaw te la ko warloog moom lu tax génnewu ko fu ko jëmale. waaw laaj yooyu nag mooy yi nga war a xeexi. mais bu ko sëf ci askan wi nga xam ni ñoom dañoo am déjà problème. Hmm. loolu foo ko teg. lay wallaay c'est que loolu mooy sunu problème loolu mooy xeex bu gën a yomb. te nag ñoom am nañ ay salaire pour faj sax. waaw téye nga mel kii rek damay téye sama tàng damay téye sama loxo. léegi ki lay fay tamit bu ne la woon léegi yow ginnaaw téye nga sa loxo ñu ne dootuñu la fay téye suñu loxo. waaw nga dëgg de a grave. Ah? wallaay wallaay problème du am. Hmm. nga naan non non warut a samay salaire kii ne la non waroo maa bañ a faj. wax nga dëgg de. donc problème bi. Uh-huh. kii ne du fay. Uh-huh. fan la teg ne du fay courant. mais maire ba maire ba nee nañ nekku fa jamono ji dafa tukki. waaw ah, maire boo fa nekkul rek mbir yi arrêté mel nii ku yor kii. salon waaw ah, yow <laughs> mais dafa am nu muy doxee. nga nekk faa nga bañ a nekk mbir yi day la. am nga ay adjoint doole mi ngi mel ni Cheikh Niass xëy rek daal ñu ne duñ fay salaire parce que dafa tukki fu mu tegu. am ñeneen ñoo xamante ni bi ñoo gérer lool. Ah, vraiment mu tukkeeg mu ne fi. yëf yi daa war a dox. dëgg la nit ñi weer waxtu wi bu jotee ñu fayu. dëgg la dem jël seen salaire. Ah, waaye mais maire bi tukki na euh, dara doxatut léegi il faut maire bi ñëw xam nga léegi dañuy gën a kii bu maire ñëwee nag daal di fay kii ñu def meeting rëng rëng rëng rëng maire bi fay na courant bi <laughs> macha allah. maire dafa génn wallaahi maire xam nga ni bu fi nekkee dara du fi lëj te moo la jël lépp. loolu mooy problème mu réew mi son yi. <laughs> nañ génn bala ñoo lëjal loolu. ah ok. <laughs> aywa jërëjëf Alaaji kon ba altine. ci kàttanu borom bi. lu may loolu le dimanche itamit di ngeen ñu am ci télé bi 22h30 incha allah ngeen ànd ceeg su koy mbaay mu présenté jommet bi foofu la ci télé bi ak équipe bi nga xam ne moom la ñuy faral di àndal euh, jaajëfal leen bu baax bu dee fële ca jokkul itamit lii ñu waxal maire bi su fekkee dafa am moom maire bi comme d'habitude ni mu fiy amee. Euh, des fois élément jàll fi ka mu concerné dafay wootewaat fii def ay euh, indi ay gis-gisam bu fekkee dafa am lu mu ciy wax muy xalaatam de dafay démentir li nga xam ne mooy élément bi waaye maire jokkul bi bu fekkee mi ngi dégg wala bureau wala euh, adjoint wala daal ñi ngi déglu émission bi foofu la ci jokkul bu fekkee loolu lu am la ñu ngi leen di xaar ci 75 449 23 23 75 449 23 23 mooy li nga xam ne mooy numéro Jomet Jibril noo def ana oustaz ñëwagul Souleymane Diaw Souleymane Diaw de ca fajar teel la ñëw ci rajo bi waaye balaa commencé 11h jot waaw xam naa loolu moom war nañ koo lijjanti <laughs> incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi ba altine asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.